la retrouve euh, tout de suite euh, Coumba Gawlo voilà non da nga ko teg ci kaa <laughs> grand théâtre anniversaire bu bu Kumba Gawlo yéegee rek c'est ce que je fais. <laughs> bon may ban genre bonjour Kumba. boobu mooy boobu mooy tàccu 100 pour cent. bii kay tàccu tàccu tàccoom la moom xam fu mu ko jëlee nag. ça va Kumba moi je vais me mettre là comme ça. ma jàkkaarloo ak yow voilà. Hmm. ça va ça va et toi merci. ah depuis ce matin waxuloo normalement. ku ma soxla eh! ñëw rek nga ne ko ça va d'accord. Coumba ah, Gawlo bienvenue merci ah euh, euh, ñëw ak ñun ce matin ci euh, yeewu leen bi on sait que jot amula ah. liggéey bi metti na mais d'habitude fajar nga yeewu sonal gars yi ah, sonal leen dugg fépp wax ak ñoom ah et là c'est un plaisir ñu àndaat ak yow ci yeewu leen bi toni bi aussi rafet na trop ah ben merci waaw c'est très beau nii laa leen defal ah kon neex na leen ah neex na ñu ah yéena su ma leen seet si damay defar ah ba mu baax <laughs> alors euh, euh, yaa ngi am ay invité euh, ce matin on en a parlé ci yeewu leen bi que Niger par exemple c'est vrai que ci dëkk Afrique yëpp foofa dem dafa mel ni comme si foofu mooy sa dëkk ah nga bokk ci raar artiste sénégalais yu am chance boobu dëkk boo dem ci Afrique foofu daanaka sa dëkk la Niger par exemple boo fay wàcc aéroport ba ci résidence bi ngay dal nit ñi dañ lay topp comme pas possible et là moo tax dangay bëgg foo tollu di leen sargal ñoom waa Niger Kumba. waaw dëgg la Pape Cheikh avant tout maa ngi leen di nuyu. Ah, di leen euh, gërëm ci invitation bi di nuyu sa. collègues yi ma fi fekk yëpp di leen wax di nuyu aussi euh, téléspectateur téléspectatrice TFM di leen xamal ne am naa mbégte gu rëy teew fii. Mhm. effectivement Niger bokk na ci réew yi nga xamante ni nii euh, dañ may sargal fu ma toll. Mhm. man it vraiment ma di bëgg di leen ko delloo. Mhm. ndax xam nga musique dafa nekk loo xamante ni nii amul euh, frontière. ah musique mooy li nga xam dafa am doole vraiment pour wër fépp. te Niger mën naa ni léegi sax fa laa dëkk. wala mën naa ni bokk naa ci ñi nga xam ne citoyenne ya la ndax. fu ma public bi teg ndax it euh, fu ma artistes yi ma fay fekk aussi teg mhm. ndax it fu ma institution yi teg fu ma kilifa yi teg mhm. loolu lépp aussi ma koy sant yàlla di ko mhm. gërëmee euh, waa réew ma parce que du ci manaa ci ñoom la voilà ndax boo nekkee ci réew vraiment ñu jël la teg la fenn fii ndax sa musique ndax sa tour te daaw la gis nga yegg si fa ñu jël la ba jox la benn gëdd bi bay dem ba lay dénk ay projet loolu sant yàlla la rek ak sant sant Sénégal ndax lépp Sénégal la départ fii la doore Afrique yi nga xamante ni nii am naa fa tànk bu baax ak taxawaay bu baax alors bi ngay ñëw da nga ak délégation bu fort ah délégation bu bu bu rëy mm. ah une très forte délégation euh, ay ndaanaan ay artistes yu mag mm, barki démb mm, rek ñu ngi koy seetaan ci télé bi euh, euh, événement bi amoon foofu ñaatam nekkoon fa y avait la télé ñu seetaan ko mais tey yaa ngi itam doxaat ci beneen combat effectivement parce que euh, dama ànd dëgg la ak ni nga ko waxee ak ay ndaanaan yu mag. muy mhm. ay artistes yi nga xam ni bokk nañu ci ñi ñu gën a ràññee ci Niger. Mm doon ay jigéen aussi euh, mais ñu ànd di liggéey ci beneen combat comme ni nga ko waxee maanaam xeex euh, wàll ak ak yelleefu jigéen ñi. Mhm. mais ci thème bu spécial boo xamante ne nii ñu ngi koy wax planification familiale mhm. maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu soriantool njur gi mhm, mhm, ndax bi ma demee Niger comme pays yu bëri ndax dem naa visiter ay centre yu mel ne centre Delwende Burkina Faso euh, dem naa fi visiter ji au Mali aussi ndax dañu bëri le problème yooyu Sénégal am na ko mais fësul nu mu fësee ci yeneen réew yi mais Niger bi ma fa demee vraiment ci samay action yu may gën di def visiter naa ay centre yoo xam ne ay jigéen ñu am jafe Mhm. Euh, maanaam les femmes fustules en mhm. ah, victime de fistule lañ koy wax te loolu li ko indi mooy sëy voilà mooy mooy sëy bu teel voilà voilà te li ko indi rek mooy mhm. sëy bu ndax da ngay gis xale bu am fukki at ak ñett ñu maye ko wala fukki at ak ñeent te bu ñu ko mayee it mu jur doom ñu ko bàyyiwaat mu noppaleeku mu ñëw juraat donc loolu yëpp mooy indi jafe-jafe yooyu moo tax ñun ñëpp vraiment ak euh, ci euh, njàppale UNFPA Niger bi ñu ñu wóoloo ba jël ma vraiment ni ma dañu buggoon ma piloter projet bi mhm. artistes yi ma invité leen Sénégal ñu ñëw mhm. ñu àndandoo ndax doole jigéen àndandoo la quoi mhm. voilà benn jigéen déjà mën na soulever ay montagnes rawatina bu ay jigéen ñu bëri ñëwee liggéey pour def ko surtout bu ñu jugee beneen réew moo waral ñu fekk si ma Sénégal. Mhm. pour vraiment ñu ñu jooy euh, euh, phénomène boobu. Mhm. ci li nga xamante ni nii mooy suñu métier muy yoon wi nu mun a aw muy musique. Mhm. def benn way boo xam ni macha allah bu ngeen ko déggee. defe naa ni dina bokk ci tube yu mag yi quoi. voilà pour euh, sensibiliser ci espace yi naissance yi maanaam boo juree nga dal. ba toppatoo sa doom toppatoo sa yaram. faju daal di daal di soog mën a juraat. ndax dina tax jigéen gën a mën a garder taaram. dina tax mu gën a mën a garder wér yaramam dina taxit du am jafe-jafe yi ñuy wax comme jafe-jafe fistule ak yeneen ak yeneen i problème autorité autorité Niger yi dofuñu de ñoom xam nañu ni euh, combat yu mag ci continent bi muy guerre muy famine muy feebar yow euh, tout le temps da bokk ci hymne yi ñuy teg euh, pour gën a sensibiliser nit ñi donc ñoom dofuñu ah mm. waaw sant yàlla rek sant ñu tànn la pour nga piloter la la preuve ñun bi ñu dégloo way bi on s'est dit écoute du Sénégal donc wala du Niger dong mais dëkku Afrique wala àddina bu ñu ko déggee jigéen jigéen itam des koy a euh, ormal surtout en terme tout à fait ndax mm. dañu loolu yëpp sant yàlla la rek Pape Cheikh ndax boo demee ba waxuma la sax sa réew nga jéggi yeneen i réew mm. ñu di la woo di la dénk ay euh, projet yu mel noonu ni la dañu bëgg nga ñëw nga pilote ko te nga defee ko sa réew mm. euh, jigéen yi ma invité leen loolu yëpp aussi vraiment sant yàlla la et puis aussi sant ñi nga xamante ni nii ñoo a def confiance mm-hmm. muy UNFPA Niger parce que c'est un très important des Nations Unies mm-hmm. boo xamante nii ñoom xam ci mbirum njàng mi ci mbirum mariage forcé précoce mhm. ak mbirum surtout jigéen vraiment nu mu amee droit am dañ ciy xeex bu baax voilà te moom dafa yàgg nekk sama combat ah. te kaawu Niger représentante bi di Monique Kleska dafa nekk koo xam ne toujours mhm. daf ciy fas yéene di xeex ndax man liggéey naa ak moom ci projet yu bëri foofu ci dëkk ba mhm. nga xam ne dañuy dem di visiter ay zone yu sori kon loolu yëpp vraiment lu am solo la loolu moo wone rek ni boo dee def musique yàlla may la nga yegg ci fenn fii sa ambassadeur réew ngay doon Euh, euh, doomu Sénégal la mhm. ambassadeuru Sénégal la mhm. kon maa ngi sant yàlla saa yi ma mënee dem ci turu Sénégal rek représenté suma réew mhm. jàppale ñeneen ñu fexe indi yokku leer voilà yokku leer ci continant bi yokku leer pour euh, xale yu jigéen yi ñu gën leen taxawu yokk leer pour njàng mi ñu gën ko taxawu mais ñu ñu yokk aussi leer pour jigéen ñi sigg yi ñu bañ a sëgg ñu xam ne am nañu droit bañ am nañu droit wax seen droit am nañu droit xam seen droit am nañu droit aussi def seen ay choix pour la chanson euh, ci yan langue nga nga nga way pour ñu mën a pour que message mën jàll. waaw chanson yi xam nga wax nañu ci langue yu bëri xam naa suma xarit yi bu ñu ñëwee mhm. dinañ ci gën a waxtaan ak yéen ndax dañu ko def ci làkku dëkk ba mhm. ndax def nañu german mhm. def nañu euh, hausa ah, def nañu euh, langue yëpp ah, ak français ci biir ndax refrain bi dafa nekk français ñu defee fi réalisation bi sama euh, directeur artistique projet bi nekk Théo Théophile Koumangu xam mi ngi sama groupe vraiment donc man ma ñëw aussi wax sama langue <laughs> ndax li ñu soxla mooy kenn ku nekk rek dëkk ba nga ba nga nga soqeekoo. Mhm. nga wax euh, ci sa ci sa làkk ci sa kallaama mhm. voilà pour nit yi xam ko ndax dañu bëgg mu nekk envergure mu mu nekk lu international. Mhm. loo xam ni doomu aadama yëpp dinañu ko dinañu ko mën a xam daal. super dinañu déglu way bi certainement et puis on va on va juste euh, laisser le soin à l'équipe technique ñu installer euh, artistes yi nga àndal ci way bi ñoom ñëpp ñu ngi fii juste le temps de jàll ci li nga xamante ni moom la ñu tuddee bon plan bon coup ah ak Exidex. c'est parti en attendant ci yeewu leen bi